ndeysaan Cheikh Mouridine Samba Diallo bi nga xam ne tey moo dëkkoon Sagne Bambara euh, ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla yokk ay leeram sa ci barkeem dama ko yàgg topp nag ay vidéo yàgg na yàlla mi ñu tiim xam na ko yàgg naa ko topp lu mat ay quatre ans cinq ans dama koy dama dama koy topp di ko déglu ay gàmmoom ndeysaan ba ni mu génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm vidéo yu bari ma koy seetaan yu baree baree baree bari yoo xam ne daan na ko wax ci Sénégal mu nekkoon kilifa diine goo xam ne tey jii nii maanaam euh, ñu bari war nañoo roy ci moom surtout waaye sénégalais yu bari ay imam yu bari ay sëriñ su bari dañoo war a roy ci moom parce que nit la koo xam ne maanaam servir na réewam waaw servir na réewam bu baax a baax a baax a baax te sénégalais yépp xam ne moom servir na réewam parce que tey jii ni maanaam amul gàcce fa mu tëdd te nit ñi nga xam ni ñoo daan taxaw ci ay tàntam di dem ci ay jàngam donte am na comme ñun Sénégal euh, am na ci ñoo xam ne comme li ma naan sëriñ si da ngeen a war a am méthode boo xam ne moom ngeen war a doxee parce que famille boo dem am na murit am na tiijaan am na xaadir am na laayeen am na ibaadu tey jii nii maanaam moom taxawaay bi mu taxawaayu servir peuple le Sénégal humanité Sénégal peuple bi maanaam taxawaayam moo nekkoon wax ndaw ñi li nekk ci biir réew mi ci ay man moom ci moom laa njëkk a déggee ay ci moom laa njëkk a déggee mu ne Sénégal am na pétrole am na pétrole avant ma koy seetaan ci YouTube bi boobu am na benn rajo benn rajo xamatuma nag rajo bi ban rajo la boobu Sénégal la après nag bi ma dégloo bi ma bi ma kiyee ci YouTube bi laa ne ah kon kii leen kii woon ci rojo boobu ndeysaan xamatuma nag ban rojo la ñu tegoon ci ay enregistrement muy wax ci ressources yi nga xam ne am na Sénégal bi ma demee nag ba gis ko nii ci YouTube bi nag di ko seetaan xam ni kii ab sëriñ la gëstu ay maamam gëstu fi mu jaar mais fi mu dem ci àdduna bi bari na trop mu nekk boroom xam-xam ay université yu bari ci àdduna bi jàngale na fa Yalla noko yalla yeureum yalla yok ay leeram sa barsàq taasu ci barkem ci barke mamam sayidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ñu ngi leen di ziar yeen ñepp di leen wax ni Senegal rek mo tax ñuy wax parce que senegal yalla dafa def ay mbell yo xamni euh man amna tubab yo xamni leg leg sumay waxtaan ak fi euh di leen wax senegal ressource naturelle ya fa am barke rasulaay ñom ci seen wàllu bopp da dañuy waaru te Sénégal dafa am ay ressources naturelles yu bari am na ci ño xamni suma len suma waxtane ak ñom dama len di jox ay plateforme ci YouTube ni len dem len fa ngeen tapé ko mais yalla mi ñu tim xamna ko après dañ may rendre compte di capturer ay images di mako envoyer mu nekk lo xamne tay ñun askanu Sénégal ñun doomi réew mi dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax surtout ñun ñi nga xam ne ñooy di doole chaque jour damay koy wax ay liveur ñun ñu nekk ci suñu biir naan leen léeg-léeg bàyyi leen di wax ñun ñun baadoola yi ñun doomu baadoola yi ñun duñ ay baadoola ñun ay néew di doole lan chaque jour léeg euh, ñun ñuy xeex dafa am loo xam ni il faut que ñu xam yenn moo yenn wax yi yi ñuy wax ñun duñu ay baadoola ñun ay néew di doole lan baadoola yi mooy ñii nga xam dagaan nan baato ñu jox leen baatu askan wi xam nga ñu nekk fi di def loo xam ne waruñu koo def ñooñu ñooy ay bàddool la imagine leen tey jii fii Sénégal toll ngeen gis jafe-jafe yi gis askan wi tey li ñuy dund korite gi tey man xam naa ci ay nit ñu bari ñoo xam ne tey jii nii maanaam yelloowun woon muurum koor mais kooru ren gi yelloo nan ko lépp ñan ñoo nu ko teg sunu njiitu réew yi chaque année ñu ñuy gën a dundaloo ak toroxtaange chaque année ñuy dundaloo askan wi tey ak njàqare ak tiis ak yu méttee métti yoo xam ne tey mooy loolu loolu ñun dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax corona bi biñ ko fi déclenché taxaw publicité fi ay ceeb ceeb yi joxuñu ko kenn tëj askan wi couvre-feu pendant ñaata temps yoo xam ne askan wi ñu ngi ci ay jafe-jafe Sénégal ngeen gis événement yi ni muy tegaloo ñuy sonal askan wi yàlla may ñu ay ressource naturelles yoo xam ne tey war nañoo mën a même bun bun bun bun defarul ay ay ay société ay entreprise yoo xam ne tey ci région bu nekk département bu nekk tey jii ne maanaam muy jël ay milliers de personnes ñu fexe ba industrie bi ñu ñu jàppale leen mais defuñu dara dara dara dara ku fi toog da ngay daaju muy dox loolu ñun rek ñoo ko mën a jeexal ñun peuple Sénégal ñoo ko mën a jeexal surtout banlieusards yi man maa ngi woo sama mbokku banlieusards yi di leen wax ni ñun banlieusards bi ñun néew di doole yi ñun ñoo mën a libérer Sénégal parce que li gën a metti Sénégal ñun banlieusards bi ñoo koy dund banlieue bi ngay ñëw mu taa indoone tali bi am ay pax banlieue bi ngay ñëw tey mu taa di taw nga gis ñoo xam ne tey dañuy am euh, problème moyen transport oto oto manque seen foos ci mbedd mi leen koy vider banlieue bi nga koy gis li may wax banlieue zar bi yéen ñëpp mën ngeen koo seede te loolu lépp dafa jot mu dakk nan lay dakkee ñu am ay njiit yoo xam ne xool leen senegal tey jii diggante Fass euh, diggante mbaaw Zac mbaaw Fass mbaaw ba Tëngéej ba Bargny ba Diamniadio xool leen géej gi ni mu jigee population bi nga jël ko côté boobu jëlal géejawaay man nga bu la neexee sax tàmbali li yoof tàmbali Cambérène tàmbali parcelle jël géejawaay ah jël ko noonu Pikine caaro yi foofu yépp tey diggante yooyu boo xoolee pour ñu canaliser ko tey ba dëkk bi dootul inondé loolu nekkul loo xam ne tey jii ay moyens yu baree baree baree baree baree baree baree la laaj mais ñun banlieue bi nit ñu war a taxawoo taxawoowun ñu ko parce que ñun suñu doxalin parce que politiciens yi buñ soxlee ci banlieue bi la ñuy ñëw jël suñu yaay yi sunu yaay yooyu nag fekk am na ay représentants yu nekk ci biir dëkk bi man loolu Malika laa ko xamee am na ay maire yu fa nekk mën na maa tudd seen tur parce que ñoom laa gis ñu ko doon def duma fi nekk naan ay te xam leen donte seeni doom samay xarit lan dama daan ànd ak ñoom damay tudd ci seen tur pour ñi ñëw ëllëg xam ni fii lépp lu fi nit di def ngir askan wi na nekk njariñu askan wi mais defuñu ko ngir yàq seen der wala am ak yéen règlement de compte ay ñoom maire Binta Dem ñoom maire Khoudia Sall ba ci ay ñoom Talla Gadiaga yi ñi fi doon jàppale PDS ñoom Ablaye Wade ah nga xam ne am na jamono joo xam ne lan la doon nga joxe sa carte d'identité ñu jox la 3000 francs solal la 17 nga yëg ci super yi dem di tàccu di yuuxu ay milliers de personnes nga ñëw kenn ku ci nekk mille mu wóor na leen lii tey jii boo ko dajale woon am na foo ko mën a dugal tey jii ci wàllum industrie tey wala nga xool mécanicien yi tôlier yi nga xam ne tey ñu bari ñu tëj ci seen doom yi ci biir kër yi ñoom lañuy jël yóbbul leen ko ngeen jàppale leen tey jii société bi mën a normal du ngeen ko def ngeen di dundu loo xam ne nag nit ñi ñëw di am léeg-léeg ay problème mu dépasse di leen koy di leen koy diis ngeen di leen jàpp ngeen di leen koy jàppale seeni doom di leen ko xoole seeni dëkkandoo te loolu lépp tey jii mënoon ngeen a am taxawaayu social boo xam ni tey képp ku sonn du ngeen ko dimbali te du dugg seen kër nit ñi di ko gis naan lu mu añee lay lijjanti jeeg lu mu re parce que loolu ngeen ci bëgg di toroxal askan wi ñun askan wi nag ñun ñoo war a yeewu xam ni Macky Sall doole ju mu am ci réew mi ensemble la ko jëlee ensemble boobu nag ñun peuple Sénégal nan fexe ba toog fa ensemble nan fexe ba toog fa ni fa rëjj ni kuy lekk gis nga ñun sénégalais bu ñuy lekk ni ñuy def sukk respecté ko jàpp bool bi ba mu dëgër nan dem sa ensemble ba mel ni ab bool la nan def noonu ensemble nin koy defee mooy xool nit ñi nga xam ne tey jàpp nañ ne ñii peuple Sénégal moo leen ñor lu Sénégal mooy seen jëmm peuple Sénégal mooy seen tànk mooy seen loxo mooy seen nopp mooy seen bët ñu jël leen fa ni leen fa réji te loolu buñ ko bëggee mën naa nekk mu ngi dépendre ci ñun dama ne parrainage yi ñuy wax ak loolu lépp xam nga lan moo ko mën a firndeel képp ku voté baraayeel APR bennoo bokk yaakaar bulletin bopp fas yi képp ko voté baraaye ko nga génne ko ñun nan joxe résultat yi résultat yi ñun ñi dem voté ji xam ñu nu voteel nan joxe sunuy résultat sunuy résultat mooy bulletin yeewi askan wi ginnaaw buñ ko dugalee ci enveloppe bi yeneen bulletin yi ci des yépp nan ko baraaye génne ko daman leen caay-caay gu ñu teg ñun nan am caay-caay gu gu supérieur seen caay-caay gii ñuy def bulletin yi nan ko baraaye bulletin yëpp nan ko baraaye nan ko génne bulletin yeewi askan wi ci enveloppe dugal ci kees gi boo génnee ci urne bi mais biir urne ba moom budul bulletin yeewi askan yi bennoo bokk yaakaar ak ñi nga xam ni ñëpp bennoo bokk yaakaar la ñuy liggéeyal seeni bulletin na génn ci biti na nekk mbalitu dëkk bi ñu xam ni ñoom ñi kenn falu leen lan demee élection yi bulletin yeewi askan yi bu mu laxas liibaru mburu comme Sénégal noonu la baaxe lan demee askan lan demee élection yi da ngay gis bulletin yi ñu koy laxasee mburu nan ci taxaw bu baax a baax ñun ñoo mën a dimbali suñu bopp ñun ñoo mën a tax tey Sénégal jóge ci jafe-jafe yi ñun ñoo mën a tax askanu Sénégal nekk ci jàmm nan lañ koy defee suñu carte yi ñu yor buñ ko jaay juróomi at buñ ko jaay fukki at aw carte mënoo ñëw 17 million habitants nga ñëw ni def nga ci 52 milliards 52 milliards nga ne def nga ko ci carte wëlbatiku jox nit ñi seen carte d'identité di leen ci geraat di leen jox ay 3000 francs yo xamni yow 52 milliards liñ ci sacc ci ay milliards kenn xamul nu mu tollu nga bëgg ñëwaat di leen ci ger bëgg fee toogaat di daaju di sàcc leneen lu ëpp 52 milliards ñun sénégalais yi nan yeewu nan yuus ci cunu maayin yi xam ni politiciens yi dañ ñuy nax mais nag nax gii ñu ñuy nax ak yabel gii ñu ñuy yab yépp li may wax sa jour sëriñ sii la ñoo tax ñu yab ñu tey jii oto jóob bi ngeen jisoon corona bi bi mu fi kiiyee mu ye mu yeboon kii bi oto mbalit boobu yeboon ceeb bi daanu pourtant oto boobu Tiwaawan la jëmoon de li ma leen wax duy caaxaan de nee naa leen ñun gars yi dañ leen di topp mbir day am ñu sànniwaat ganeen yax sénégalais yi topp ci di seeñu fekk am na ñoo xam ne ñu ko sa mbir moomu ñoom di ko topp ñoom yax yi intéressé wu leen ñom fa deul wala bok ñom buñ seeñoo ba pare lañuy jël ay yax sànni ñi ñu ne mais dañuy top mbir mi auto booba tiwaawon la jëmon sëriñ ci ay camion yi ciép lañ leen di yobul ci seen kër yi amuñu problème mu dund moo deug dëgg liñ wara wax duñ ko wax ay na fekk nak yu melni bas abdou khadir ak ay modou karak ay mamadou lamine porte parole laayeen ñooñu la ñuy ñu naan ay jappale leen ablaye diouf sarr ak ay rew mi gis na ay nit yoo xam ne tey jii ne maanaam teg nañ leen foo xam ne foofu sëriñ see fa yelloon nangam nangam seen tappale yi bàyyi leen ko bàyyi leen seen tappale yi lan moo tax kon Abdoulaye Wade bi mu daanoo topp leen Karim Wade ni ngeen meloon ci ak góor gi yéen murit yi ak ñépp ñu buggoon ak lu tax melu leen ko ci Karim la ngeen gisoon ci ab Abdoulaye Wade ngeen gisul ci Karim bu leen ñu fontoo Bass Abdou Khadir li liñ gisoon ci sa baay Cheikh Abdoul Khadir Mbacke liñ gisul ci yow toppal fële doo gat ab sàcc nga ab naafiq nga yaa ngi Modou Kara ak Mamadou Lamine yam ay saay-saay ngeen ay nit yu bon ngeen yéen a tax politiciens yi yàpp ñu Abdoulaye Diouf Sarr bu demee ba yàpp ñu ba yàpp ñu tey nanguwut a taxawu santé Sénégal Mamadou Lamine mii la ak ak ak ay mbokkam yoo xam ne tey ñoo def ay njaaxum ci dëkk bi Abdoulaye Diouf sar alal ji nga xamni jël nako waron ko def ci santé bi di len ko fayalé ay bor lolu moy deug askan yi dama bëgg ngeen yewu yewu len ci sunu sëriñ ci may ñess mi ay jamono don fi Usman Ousmane Sonko bobu yépp ndekete da don ot pour Macky Sall fan amé buntu inigréb isaat mom lañ jital andiko mom may ñass ñas kenn déggatu ko mu wax kenn déggatu ko mu wax kenn déggatu ko mu wax te yéen ñëpp a xam ne lim daan def ay sorties bari na ndekete sorteem yu bari yëpp yim daan def defu ko woon ngir ak patriotisme defu ko woon ngir bëgg Sénégal loolooy dëgg de defu ko woon ngir patriotisme da ko doon def ngir ay privilège da ko doon def ngir dund bu neex ngir bakkenam ngir tey jii bis bu dee xam na ne mag la bis bu dee tey ak njabootam toog fi di daaju bu leen nit ñi joxutit fekk tey jii ñoom maanaam dóoral na leen ci état bi loo xam ne ay sëti sëtaatam mën nañ cee dund loolooy dëgg dañ koy wax maay ñes dañ ñoo bett lu leer lañ la wax génn leen ngeen wax ci nguur jigéen mii Cheikh Omar Diagne mii ñuy jaay doole ci kaso bi ay imam yu bari déggoon naa leen ñu def discours bu dee mbirum jaay doole la di wax ay avocat duñ ko seetaan kenn déggatu leen ñu wax ci seen caaxaan yi ngeen nekk ñëw leen ko bàyyi tey wax ci réew mi ci ressources naturelles yi nga xam ne tey moo nekk ci réew mi mën a dimbali askanu Sénégal ñun ci loolu leen di xaar xaaruñu leen ci yoo xam ne tey jii nii maanaam def ñuy divertir loo xam ne tey amalul askan wi benn njariñ nan leen ñu waxante dëgg mouvement yi dafa bari tamit mouvement yi da ngay gis benn nit bokk ci trante mouvement yoo xam ne 30 mouvement yi lépp yëpp ñoo bokk lu ñuy xeex. 40 mouvement yi yépp ñoo bokk lu ñuy xeex mais kenn ku ci nekk dangay dem créer sa mouvement ñun yooyu nan ko bàyyi nan ko bàyyi tey jii am na ñoo xam ne tey ñu ngi nekk fii di live chaque jour bu doon nekk nan benn duñ live chaque jour xëj na semaine bu nekk benn yoon nga ciy génn te ku génn jàpp na ni yow yow jàppal ni yow yaa doon live tey man live yu bari bu gene day melni man ma gene live parce que ñun ñepp ñoo bokk yaakaar naa lu ñuy xeex kon ñun war nañoo xam suñu bëgg-bëgg lan la affaire mbir mi dañ koy bëgg tourner am sama benn xarit bu dëkk Malika ay jamono daf ma doon wax naa ma yow yow yow sa live yi kenn du la seetaan sa fii barke karim sénégalais yi problème mu fii am imagineel tey jii 500 personnes de la seetaan te 500 personnes yépp de la seetaan tay jii nii manam 4 personnes ño paré ci li ngay wax li ngay révéler li nga bëgg Sénégal ñu téggu ci ci ci ci yoon woowu kon 96 496 personnes kon amul njariñ ñun waruñu ay vie sàkkuwun ay vie ñëwuñu tay pour ngeen di capturer d'écran bi naan xol leen sa way likoy sétane dedet ñun waxuñu ngir ay vie dañuy wax ngir pétrole bi nu bokk ci réew mi ngir phosphate bi nu bokk ci réew mi ngir marbre bi nu bokk ci réew mi ngir calcaire bi ngir zircon bi tey jii senegal ba ma déggee Cheikh na Samba jàll mii ma fi doon ñaanal sànq mu naan Sénégal tey tey sax dégg naa ci laayefu jiji bi tey mu tegaat ko pourtant vidéo boobu ba ma ko dégloo yàgg na barke alxuraanul karim ba ma ko dégloo ëpp na quatre ans mu naan senegal tey jii nii maanaam tonu ciment monon na fee jar vingt mu ni Sénégal tey te li wax dëgg la usine ciment yi nekk Sénégal amu ci lenn lu ñuy jéggaani lépp ci réew mi lañ koy jëlee kon ñun ay njiit yu baax ay njiit yu am patriotisme ay njiit yu bëgg askan wi moo ñu manqué ñii fi toog nag nga xam ne ñoom la ñuy xoolee Seydina Limaamu di leen xoolee Serigne Touba di leen xoolee Seexu Ceneba di leen xoolee Seexal Lislaam di leen xoolee tey jii Serigne Touba ñooñu tey ñoo ñuy wor loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg ñooñu ñoo ñuy wor ñooñu tey jii nii maanaam ñoo tax tey jii nii maanaam euh, langue politique gi yàpp ñu yàpp askanu Sénégal billahi wal kitaabi ñoom la ñoom ñii la parce que liñ war a wax ci réew mi duñ ko ci wax pourtant Mamadou Lamine mii ma ŋàbbu fii ay nit yu bare bare bare bare bare bare di tëbaka dal naan ay kilifa la nang du kilifa dara ab dooma la li ma gën a metti Mamadou lamin dafa am rakkam jum bokkal ndey ak bàyyi joo xam ne laayeen yu baree baree taxaw naa fii ni leen waa ana maam ala laayeen yépp a ko xam ñaata at kenn tegu ko bët pour pourtant dafa feebar te tànt bu mu taxaw tey jii tudd fa ab Abdoulaye Diouf Sarr ngir ay sàcc yoo xam ne sàcc na ko ay taalibe jël seen alal arnaqué leen ñu koy fayal ay bor ci ay pelent yu mu am affaire de faux billets ñu koy tudd tey problème am yoyé moko gëna rakam a rakkam jum bokkal ndey ak bay man dama xam limay xex man dama xam limay xex limay xex dama ko xam motax yeen dooma xaraam yi genn bo genné ni imam makhtar wala Mamadou Lamine wala nga genn ni bay jin ciow ñi te bëgg dal yeen ak ñom lay boole tégal seen nday man ma leen limay xex dama ko gëm sama bakken bi la ci tek waaw sori leen nak bu mu tax kenn ku nekk jàpp ni xaj na li ma sori bu ma soree amul loo man doxuñu ay taati neen bàyyi leen seen caaxaan yi te wax ci réew mi ñun ci réew mi lañ leen di xaar mënuñ fi leen fee nekk di def lu ñaaw ni kenn du leen ko wax mënta nekk chaque jour tey jii ñuy taxawal loo xam ne jël xaalisu askan wi la di ko dundee di ci préparer ñoom seeni doom ak seenu dund mais du jàppale askan wi bi fi appel bi di appelu laay ni di door a jeex bàyyi njiin caw bi mu génneeg boppam bu salte boobu mel ni dof génn le mouvement soutien de xalifa général léegi depuis appel baak léegi léegi lu ngeen wax ba appelub déwén du ngeen du ngeen fi teg dara motax damay dégg ay laayeen yu bari man mang ngi li ngeen di wax maa ngi koy dégg de nan njoon ciaw plateforme bobu mu doon wax dafa wara a génn taxawal ko ndax laayeen yi nangam nangam xam nga lan motax fi dara mënu fee taxaw lu jaring lu jariñ lu jariñ askan wi ngeen def tey boo gisee yenn plateforme yoo xam ne tey mën naa cee cité benn boo xam ne ban ko taxawalee ba léegi chaque jour tànki kanam la jëm amul tànki ginnaaw muy Touba sa kanam man dëgg laay wax de barki alquranul karim Touba sa kanam saaga naa ci ndey ab murit bu ma dëkkaloon boo xam ni fii leen dëkk Brésil mais Jurbel la dan doon waxtaan mu ne ma duma ci dugal sama xaalis ma ne ko kattal sa ndey yow doomu murit saaga ndeyam man na maa jaar ci turam mut jaw la tudd mu ngi dëkk Louga nekk fii Brésil parce que man dama gëmul tey jii nii maanaam ngay mbuboo Serigne Touba di mbuboo ma comme li ma doon wax sama mbokk laaya ni nee naa leen man sama gëm Seydina Limaamu wékkuma ko ci dem ay appel ay appel yi nii dem ngejj gaag dem ndingalaag dem xuntuma man sama gëm Seydina Limaamu wékkuma ko foofu sama gëm Serigne Touba sama bëgg Serigne Touba wékkuma ko ci màggal yi parce que Serigne Touba dund na fi ba dee màggal amu fi sama gëm Seydina Limaamu sama gëm Serigne Touba sama gëm Seydi Haaji Malick maa ngi ko wékk ci lin fi digle ni nan ko def lii la yàlla digal yonent bi yonent bi sallallahu alayhi bi ñuy roy yonent bi ñuy tagg yonent bi tax tey ñu mel nii yonent boobu tey jii nii maanaam lii la fi bàyyi man sama gëm Serigne Touba sama nekk laayeen sama nekk murit ci li ma ko wékk mooy ci li fi Serigne Touba bàyyi luy dëgg luy doxal humanité bi luy jariñ askan wi tey jii ma nekk ci fu ngeen toog Serigne Touba nee na in jami xal waraa lépp lu yàlla bind te yéen bu ngeen ñëwee di duul loolu yéen bu ngeen ko gëmoon bu ngeen ko doon dund yenn ci yeen ku ci melni Madina jeen pourtant Madina jeen mi ngeen fi gis mu taxaw duma Cheikh Omar Diagne soutenir ma ko ñun yag nañu taxaw ni leen du dëjjëw ndayam barki alquranul karim Madina jeen yag na fe saga ndayam ay Ibou Fall ay Ousmane Tunkara sax nan layfal nan ko fi ay ñun billahi wal kitaabi ñu ngi saga de ngeen def ñu ay dooma xaraam mais liñ comprendre ci nit nit nit xamulen ko amna façon bo xamni boko yoré rek yalla tak daf ñuy wan identité lu ñu yow ab doomu xaram nga nan tégal sa nday lolu yalla ñukoy xamal du bañ la du li nga nek mourid du li nga nek tidiane du li nga nek layen du li nga nek ibaadu yalla mo ñuy xamal ni yow ab doomu xaram nga ta yalla joju du genn yor aw ab rojom di wax dedet ay nit la lay booleel ñu déggal sa nday ba nga nek nit mourid yi wara wax in jamee hal wara ah madina je bokku ci ay ñom Cheikh bara jaay yi tok nan Cheikh Omar jaay dafa laal sama pas-pas ñu ci parce que yeen bu ngeen jangoon deug deug deug Serigne Touba xam deug deug deug Serigne Touba ñi ko ñi ko bëgg laa wax bëgg ko dëgg te du duñu ay murit sax barki alquraanul karim buñ amee nit yenn digg yi tey buñ xalaatee dëgg dëgg dëgg dëgg yenn mbindum sëriñ Tuubaa yi dañuy wàcc parce que fu ngeen toog di wax li liñ ko teg ci ay nattu fu ngeen toog di wax sonal yéen ko sonal fu ngeen toog di wax jafe-jafe yéen ko teg te xool leen fi mucc ay ñaanam li mu tënk li mu wax moo tax yéen ñu ak yéen barki alquranul karim da ngeen di lalli rek mais fi ngeen ñuy bàyyi lu ngeen indi ñu lalli ndeyam katt ndeyam fële sa xaj parce que yéen da ngeen ñuy fontoo yéen ñaari Serigne Touba ngeen ñu indil. sëriñ tuubaa bu bon sëñ tuubaa buy fayonte sëñ tuubaa buy wax lu ñaaw sëñ tuubaa boo xam ne ku ko wéq mu wéq la ak sëñ tuubaa boo xam ne ku ko wax lu baax mu wax la lu baax sëñ tuubaa boo xam ne ku ko yéen a yiw mu yéen la yiw sëñ tuubaa boo xam ne ku ko raayal ginnaaw mu raayal la ginnaawam yéen ñaari sëriñ tuubaa ngeen ñu indil billaahi wal kitaabi da ngeen a yaakaar ne ñun ay doflan wala ñun duñ déglu wala ñun duñ ay nit yu xalaat wala ñun nekkuñu ay nit yoo xam ne ñun ak yéen ñoo bokk làkk olof yi man dama koy wax fii ay sénégalais léeg-léeg sa waay non léeg-léeg damay débat fii nit barki arquran ba débat bi përiyee ñu no non sa waay dang maa jaaxal ma ne ko li tax ma jaaxal la man duma ab burkinabé man buma nek buma nekkon burkinabé duma la jaaxal parce que da nga may jéema nax jaay ma ni sénégalais la maa la ëpp bopp maa la ëpp man du ma burkinaabe du ma malien ab sénégalais laa comme yow dëkk ci réew mi comme li nga dëkkee ci réew mi loo xam ci Serigne tuuba laa xam ci Serigne Touba Alaaji Malick noonu yàlla nag du ma nangu nga gën ma koo xam gën ma koo bëgg parce que mooy rabbul sama wal ardi ginnaaw bëgg sëñ Touba ginnaaw bëgg Seydi Haaji Malick bëgg yàlla njëkk xam yàlla nag ba pare xam li yàlla sàkk ba pare xam li yàlla def ci alam bi ba pare nan bàyyi xel sunu bopp bu baax a baax caaxaan lu Seydi Xaaji Malik nekkutoon Oustaz Modou Fall duma ci woo lu Serigne Touba nekkutoon murit mënta fexe ba confirmer convaincre ma ci lu Seydina Limaamu nekkutoon ay momadou Lamine cawak, ak yaa ngi ay ñoom Ibou seeni yëg ay ablaay Fall ñu naan si karkat dooma xaraam ji toog ndingala di puus muy dox ak kenn mënta wax a wax ba convaincre ma ci barke alxuraanul karim te yéen ngeen jub baax daf leen a war war goo xam ni sax yéen ni ngeen ko mën a imaginer yéen waru leen ko waru leen koy tay loolu parce que maanaam leen yàlla nat nattale la da ngeen a jëf yu bon jëf yu bon ba yàlla indi leen ay opposition yoo xam ne tey jii ne maanaam barke alxuraanul karim xamu leen yéen fu ngeen di mucceek ñoom ci lii ngeen jàpp ne am nguur la toog daaju muy dox seen rayante gi seen discours yu bari yépp privilège yi ngeen di xalaat après tey bu ngeen ci màbbee la parce que ci kaw askan wi ngeen di dund ci xalaati askan wi ngeen di dund ci doolay askan wi ngeen di dund ci bëti askan wi ngeen di xool ci cinu askan wi ngeen di lekk ay doomu xaraam ngeen du ngeen cottu ndayam man nag sama xel mi ak sama xol bi nit du ko fowee ci Seydina Limaamu nit du ko fowee ci yàlla nit du ko fowee ci Serigne sama bakken bii moom nit du ko fowee ci Sénégal Wow. nit du ko fawee ci Sénégal na leer ci yéen bu baax a baax a baax ak koo mën a doon na Seydina Limaamu jur sa baay na Serigne Touba jur sa maam na ji Maalik jur sa yaay ak koo mën a doon barke alxuraanul karim sunu àq ak sunu yelleef gi ci réew mi boo taxawee bëgguñu ko koo xañ sunu pétrole sunu gaz sunu zircon sunu marbre sunu calcaire quatre-vingt-quatorze milliards yi Aline Sall dóor waxu leen ci quatorze moor yi nekk ci réew mi ñu toog di ko wax ay dooma xaraam génn di ñu jabuli ci téegal seen ndey ba ngeen nekk nit la ñuy def ñun duñ leen may dara def leen lu leen wax leen lu leen neex tudd leen ñu lu nekk tudd leen ñu ko tudda leen ñu ay terroriste tudda leen ñu ay force occulte tudd leen ñu lii complot la du ngol-ngol loolu la wax lii lu planifié la lii dañ lii ab complot la dëgg-dëgg lii mooy complot wax leen lu leen neex barke alquranul karim da ngeen a jàkkaarlook askan woo xam ne dañoo juddu ngeen naan leen Sénégal am na indépendance yàlla def askan wi juddu ku ci mesure tukki ku mesure tey jël gaal gi ku mesure jël avion yàlla dimbali leen ñu xamal leen yéen ni bin juddoo ba ba mesure ngeen naan leen Sénégal indépendance Sénégal de Gaulle Sénégal Senghor Abdou Diouf sëñ Fallou sëñ Abdou Lahat sëñ Touba Seydina Limamou lu ne ngeen wax leen ko ci indépendance ñu génn nag réew yi nga xam ne nee ngeen leen kuñ leen ku ci woo sa doom maytu leen fi ngeen nekk réewu tubaab yi baaxul amuñu diine ñu gis réewu mag ñu bon ñi ni mu mel réewu mag ñu bon ñi nin bëggee li yàlla bind bind wala xadd karab naa nin joxe doomu aadama wàccuwaayam fan yi ndegam wari nan dinaa dem hôpital xam nga fan yee passé def naa fi live ni leen dinaa def live dem hôpital ngeen gis médecin yi su ma demee nin may def dan may xiif dañoo xiif malade barke alxuraan dëkku mag ñu bon ñi ngeen di wax dëkk bi ngeen ne amul ay mag yu bon ngeen gis seen doomi réew yi fa nekk waxuma la ñoom seen doomu réew de mais étranger yi fa dëkkul sax bu ñëwee nin leen di taxawoo ci wàllum santé ci wàllum paj maa leen ko wax dinaa ko def dem fa te bu ma neexee li ma bëgg man li ma bëgg li ma bëgg ñu def ma ko balaa maa dem laa leen la nangam laa bëgg te bu ma demee loolu la may defal parce que yàlla def na yàgg naa dem ci seen hôpital yi ay genre médicament médi médicament yu baree bare xam naa ko ay genre prévision yu baree baree baree baree bare xam naa ko am na yenn genre prévision yoo xam ne pour boo dee manqué ay nelaw yenn yoo xam ne pour boo amul appétit yoo xam ne tey boo sawarul sa yaram di diis ak yooyu tey bu ma ci bëgg tey bu ma demee ni leen nangam rek dana dañuy xam tey man bi ma war a jël traité wu fi dëkk bi ngeen naan amul ay mag yu baax waaye dëkk bi nga xam ne moo am Baay Ñas gu jaamu yàlla ba génn Sénégal dem Nigéria tuubal fa ñaata ñaata junni nit ay millions sax laay wax ay millions ngi nit Baay Ñas am na ko Nigéria sëriñ tuubaa lu na ngeen waxal ko ko ci jaamu yàlla lu na ngeen wax ko ci lim bëgg yonent bi lu na ngeen wax ko digganteem ak ay nawleem di Hadji maalik noonu moo tax bu ma gisee benn dooma xaram ñëw saaga toutes les ah euh, yoonu tasawuf laa Sénégal da waajoo yi dafa wax ju bon la wax maanaam yëkkati sëriñ tuubaa tagg Serigne Touba wax Serigne Touba may yi ko yàlla may wax Serigne Touba ak njàmbaaram ci diinal islaam lan moo si joteel tey jii wax wax Seydi Hadji Malick lu ñaaw lan moo si joteele wax naa Limaamu lu ñaaw lan moo si joteele tey jii wax seexal lislaam lu ñaaw nan waxante dëgg te bu ngeen xoolee ñoom ñoo fii ñëw naan xale yi parce que yéen dooma xaraam yi fi nekk bu ngeen ñëwee jël Serigne Touba fëgg ko ci Seydi Hadji malik fëgg ko ci Seydina Limaamu fëgg ko ci Seexu Cene ba te ñoo ñëpp nekkoon ay nawleem seen cottu nday seen jëw ndey ngeen yaakaar ne seen yii ngeen di def ci réew mi am ngeen fitu def ko nit ngeen moo xam ne am ngeen mbooloo liñ leen xamee lu waay wax ngeen dóor ko lu waay wax ngeen dem toj këram fii ngeen ñuy bàyyi nag li nekk ci réew mi dafa war a dakk fenal gi ngeen ñuy fenal ci sëriñ tuubaa ñun yàlla dafa def fer nañ ijji yàlla dafa def buñ ubbee Masaalikul Jinaan xam nañ leen ciy wax buñ ubbee Tasawudu Siwaan xam na lan la ci sëriñ tuubaa wax nooru daaray ni bun ko ubbee xam nan la ci Serigne Touba wax bax baxaay yi ngeen naan yi sëñ doon xeexe nangam nangam yéen ma ma xàllaa lu bari xamu leen ko yéen mbind mi rek ngeen xam mën koo liir mais dëgg dëgg dëgg dëgg Serigne Touba la muy wax xamu leen ko. am na téere yu bari yu ngeen naan sëriñ Touba xeex ak noon déedéet ban noon nafs ban noonu la sëriñ Touba doon xeexal nafs parce que nafsoom googu moo mënoon a tax tubaab bi réussir li bëgg wala mu bañ koo réussir nafsoom googu la doon xeexal bu doon xeex tubaab bi tubaab bee ko ëppi gànnaay fopp du yéen a ngi jàng ay bax yu bari yu ngeen jàpp ni sëñ Touba bi mu koy jàng pour xeex ak noonam bi la tey bi fi noon bi jógee la fi bi fi sëñ Touba jugee la fi noon bi gën a dëju waxante leen nan waxante dëgg ñun ay dun ay burkinaabe ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi nan bàyyi suñu caaxaan yi suñu naaféq yi ñu nekk nan ko bàyyi man képp ku nekk fii di ma saaga sa jobbu ndey li ñu war a wax ci réew mi dañ koy wax bu ñu kenn fontoo ñu ngi nuyu ñëpp nag di leen ziyaar euh, di ñaanal ñëpp jàmm di wax yàlla nañ yàlla defal jàmm defal ñu tawféex di leen wax ni Sénégal lu nekk dinañ ko jéem a def pour diaboliser ñu dañoo reew dañoo def nii dañoo def naa buñ réewee yéen ñu yarul yéen a ñu jur ci seen biir caay yi ak lafu séri yi leen génne génnewun fenn jugewun ci suuf si di ball di sax ni gerte jugewun ci kaw di wadd ni ay doomi koko bu leen ñu fontoo ci seen biir sër yi seen biir caay yi leen jóge privilège alalu àdduna tax na tey jii mënu leen a toppatoo benn ndaw xamal ko tey jii lan mooy sa àq sa yelleef ci réew mi bu ngeen jógee di ñu tam dëmm peeru ngol ngol loolu la doon jéem a réussir parce que man yàlla dafa def dama yaroo diggante kajoor ak bawal frontière u kajoor ak bawal fa laa yaroo yàlla def ma am ay xarit yu bari nag ci région yi ak sous région yi parce que dama nekkoon ci daara dëkk boo xam dafa am ay donga yàlla def ma xam ay nit yu bare bare bare bare am ñoo xam ni nekkuñu woon ay dongo mais bi may nekk foofa laa xamanteeg ñoom damay jokkook ay nit yu bari Père Ngol Ngol sa bii jàllul xam nga Père Ngol Ngol message bii bi mu ko doon jàllale da ko doon jàllale pour élection législative yi ñu jëm ñu yii di jub si la trente mu wax waa àll bi àll bi la doon communiquer de di leen xamal ñi ànd ak Ousmane Sonko nangam nangam mais pel ngol-ngol yaay xaj yaay doomaraam am naa féq dëgg nga moo tax bi waaj bi nga duggee ci sa émission bi ni paayu naa féq yi rek nga naaw te avant mu naan paayu naa féq yi nee na ay mag yu toog fii di fen nangam nangam ay nit yuy fen tontu woo ko de parce que am naa féq nga te dani paayu naa féq yi rek nga naaw paayu naa féq yi gone waru koo wax paayu naa féq yi gis nga mag bu ñàkkee fayda ba def taatu neen génn ci mbedd mi di taxawaalu ñu naan taati mag xale du ko xool dañuy ñëw ja sa kooy bi la ñuy jàpp sa kooy bi la jàpp xëcc ko la góor gi doo sol tubéy comme ñun dañoo ay taati mag xale du ko xool ñun déedéet dañuy dox ba yegg si sa kooy bi la jàpp sa kooy bopp sa bopp kooy bi lañuy ñuy yëngal ko ba nga xulli sa bëti ñun la góor gi mag day sol tubéy doodu len ñu nax barki alquranul karim ko mana don santal mbake santal si santal cawlaay santal gajaga sama santu mam, santal nu la neex mais billahi wal kitaabi dootoo len ñu nax fii dootu ñu fi sutural kenn ko xamne tay ji yefu nit ñi ngay mais sa problème bop sa febaru bop sa koy bu gatt ah sa gawa daanu yoy suñu yoneeku ci mais alalu rew mi ku ci tojub dom ñu toj ko ci sa ciot nday ak ko mën don ci rew mi ñu ngi leen di jaa jëfal yéen ñëpp di wax yàlla na nu yàlla defal jàmm di leen wax feet gu barkeel feet gu am yéene donte xol yi nag moom du neex dëgg rek la yàlla bëgg dinañ kaf dinañ reen naan sunu ataaye lekk sunu ginaar lakk sunuy misi mais du tax xol bi neex parce que sunu pétrole beeg sunu gaz bi sunu six mille milliards yi Alioune Sall dóor ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp.